ma lay baamtuwaat ne ku mel ni man mënula yuuxu ci kaw mhm. ndax su ma yuuxoo ñu teg ko feneen mhm. waaye man mi bokk naa si ñu loofu lool barke sëñ Bàmba bokk naa si ñu loofu lool te bala ngay dem dañ ma indil facture courant ndox ma koy teg sa loxo ndax musaafara au moins en attendant les événements les événements